sëñ Cheikh Say laay jëli nii mooy mooy ñëw borom tool yi day day damay damay leen jël ko nu ànd wër mi mu xool li ngeen liggéey ak si fii ñaanal leen dama bëgg nag ñu toog toog yi nu tàll bi te fu waaye mën a nekk itam ci li ci tool bi na na ñëw fii fii baas bi nekk ko mu ñëw te bu ku ku ci ñëwit na nga toog toog yi nu tàll bi bu ñëwee bu kenn yëngatu bu kenn def dara nañ ko bàyyi rek moom toog loolu moom laa newoon moom wax leen ko maa ngi dem nii jëli ko asaara yi mulaasi ajo bi rahmati allah ulaa yadur an min ka yàlla malik yamini waaqal bisaala yaa malike bilaa isaan bin bijo دل منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا عني وعن كرادي تدار يا الله نفسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لانسي سلام تكن لي من ويا بنفسي بطيب منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وعبلي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لست أبسترايك ما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أطيب بإيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل انقضاء بنفسي لاخترت يا الله عجبت لي انك الجبار دون الانقاذ كل الإداد بنفسي لاخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل يا متكبر talkul yàlla. Serigne Cheikh nee mi ngi leen di nuyu. nee na nee mi ngi leen di nuyu. di bi ci loxol Serigne Abdul Karim. di teg nuyoo bi ci loxol Serigne Abdul Karim. nuyoo bi. lambaale na mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Fadil. ay hmm. magam ay magam moom mii ak rakam. nee na nuyoo bi. lambaale na mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Fadil moom mii ak i magam ak i rakam. sëriñ Abo ma ca bopp sëriñ Abo ma ca bopp ba. te lu mu fi def ci ndigalam la ko defe te sëriñ aboo moom mii sëriñ Abdou Karim lu mu def fii rek ci ndigalam la ko defee. ak rakkam yi mu àndal ci liggéey bi yëpp. ci liggéey bi boobaak léegi lu mu ne ña ngi ca ànd ak moom. te boobaak léegi lu mu ne ña ngi ca ànd ak moom. muy góor muy jigéen. muy góor muy jigéen. ak sëti sëriñ Fallu yëpp. ak sëti sëriñ Fallu yëpp. ak taalibe sëriñ Fallu yëpp. ak taalibe sëriñ Fallu yëpp. ak soppe yi sëñ Abdou Karim yëpp te di murit. ak soppe yi sëñ Abdou Karim yëpp te di murit. ak soppe yi sëñ Abdou Karim yëpp te di jullit. te ak soppe yi sëñ Abdou Karim yëpp te di jullit. ñoom ñëpp nuyoo bi lambaale na leen. ñoom ñëpp nuyoo bi lambaale na leen. sëriñ Abdou. sëriñ Abdou. sëriñ Cheikh nee na. sëriñ Cheikh nee na. mi ngi lay sant. mi ngi lay sant. cant gu dëggu ci moom. cant gu dëggu ci moom. di ko seereel bokkam yëpp. di ko seereel nag bokkam yëpp. ak taalibe yëpp ak taalibe yëpp. biig la ma woon. nee na sëriñ Cheikh biig la ma woon. fekk na booba sëriñ Amsatu mu sëriñ Abdul Ahad gane na booba sëriñ Amsatu mu sëriñ Abdul Ahad gane ma ma ne ko ah sëriñ bi ndigal ñëw na kat bay boo nga bàyyi ma dem ba xam luñ may doyee ba mu agsee mu ne ma ah sëñ Abdou day dama ko doon liggéeyloo ba ma ko ko waxee ba ma ko ko waxee it dem na ca sëriñ Abo laaj ko ndigal dem na ca sëriñ Abo laaj ko ndigal ko jox naa la ci defal ko ko ni ko ko bëggee nee na mu ne ko jox naa la ci ndigal ah na ko ko defal ni mu ko bëggee def na ko it ni ko sëñ Cheikh nee na sëñ Abdou Karim liggéey boobu bii def na ko ni ko sëriñ Cheikh mii bëggee. sëriñ Cheikh ne ma. sëriñ Cheikh ne ma. li ma ci bëgg ci cant. li ma ci bëgg ci cant. yaa ma ci doy. yaa ma ci doy. damaa bëgg nga ñëw yawil ma ko. damaa bëgg nga ñëw yawil ma ko. moom mbooloo mi ko doon liggéeyal. moom mbooloo mi ko doon liggéeyal. liggéeyal sëriñ Touba nag. liggéeyal sëriñ Touba nag. lii rek dal na cim xel. lii rek dal na cim xel. day firi la mu waxoon ne. day firi la mu waxoon ne. liggéeyal ma dey liggéeyal ma dey xam naa ci njariñ loo xam ne xam naa ci njariñ loo xam ne bu ma mënoon a xaaj jëmm ji muy jan muy ñaar bu ma mënoon a xaaj jëmm ji muy ñaar ahmadu di liggéeyal ahmadu mii ahmadu mii di liggéeyal ahmadu mii kon danaa ko def kon danaa ko def ba tax moom ci boppam ba tax moom sëriñ bi ci boppam daana jóg di liggéey daana jóg di liggéey ba liggéey ba noppi ba liggéey ba noppi mu jariñu ca mu jariñu ca ngir jariñ boppam ngir jariñ boppam loola mooy lii rek sëriñ Touba sëriñ Touba moo tuggeeloo sëriñ Touba rek mooy waxam joojee rek kon nag taalibe yi sant leen bu baax kon nag taalibe yi maase leen sant bu baax waaye dafa ma sëriñ Cheikh wax léegi waaye nag dafa am lu ma sëriñ Cheikh mi wax léegi lu daw sama yaram lu daw sama yaram te war a dal xel yi taalibe yi ànd ak moom mii te war a daw xel dal xel yi taalibe yi ànd ak moom mii xam ne xam ne joxuñu leen boppam joxuñu leen boppam de sëriñ tubaa rek la leen joxuñu foo ko fekk foo ko fekk ndigal ko fa bàyyi yëgut mbooloo mi ko yàlla boole moom day yëgut mbooloo mi ko yàlla boole as ndonga si gën a xeebu la jàppe boppam as ndonga si gën a xeebu la jàppe boppam kum gis ku bokk Serigne Touba. kum gis ku bokk Serigne Touba. bu la magee sax bu la magee sax jox la cërub Serigne bi jox la cërub Serigne bi. boo ko magee nag boo ko magee nag. day mel ne jaam ci yow day mel ni jaam ci yow. loolu nag la ko yàlla fayee mbooloo. loolu nag la ko yàlla fayee mbooloo mii ànd ak moom. waaye nag waaye nag. mbuuñaa bi ci gën a neex. mbuuñaa bi ci gën a neex nag. te yëgagu leen ko te yëgagu leen ko ci lay ñëw. Serigne Cheikh dane ma. Serigne Cheikh dane ma. ñi ma ko mën a defloo bari na. ñi ma ko mën a liggéeyloo liggéey bii de bari na ñi ma ko war a def loo bari na ñi ko war a def loo bari na. te fii ma koy def. te fii ma koy def. bayoon naa fi. bayoon naa fi. ci jamonoy sëriñ Abdul Ahad. ci jamonoy sëriñ Abdul Ahad. ñorle naa fi junniy bërigo. ñorle naa fii junniy bërigo. ba ma génnee asaka ja. ba ma génnee asaka lépp noonu laa ko joxe sëriñ Abdul Ahad. noonu laa ko joxee sëriñ Abdul Ahad. bi ma nisiree nag. bi ma nisiree nag. ne dama fee bëgg a yeesalaat liggéey bi. ba bi ma nisiree damaa bëgg a yeesalaat fii liggéey bi. te lu ma fi am. te lu ma fi am. def ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi. def ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi. guddi googee. guddi googee. damaa gis Sëriñ Tuubaa. damaa gis Sëriñ Tuubaa. ku Sëriñ Tuubaa àndal. ku Sëriñ Tuubaa àndal. nee na guddi googee. nee na guddi googee. damaa gis sëñ Touba. damaa gis sëriñ Touba. ku sëñ Touba àndal. ku sëñ Touba àndal. sëñ Abdou Karim ne ci kanamam di xàll. sëñ Touba sëñ Abdou Karim ne ci kanam sëriñ Touba di xàll. moo xam ne moom la ma boole. moo xam ne moom la ma boole. loolu mooy lii jërëjëf. kon nag. bu ko waxu doon du ma ko wax. sëriñ Abdou Samad nee na wax ji bu ko sëriñ Seex waxu doon du ma ko wax de. sama maga. sama doomi nijaay sama doomi nijaay donte sënga guba donte sënga guba waaye bëgg lu ko neex waaye bëgg lu ko neex du tax ma wax ko mukk sëriñ seex daa gis sëriñ tuba sëriñ seex daa gis sëriñ tuba ña ànd ak moom ña ànd ak moom yow la ca gis yow la ca gis nga ne ca kanam di xàll kon sëñ bi yow nangul na la sa bi kon loolu rek waral mu liggéey loolu. te kon nag loolu rek waral mu liggéey loolu. moom nag moom nag. ñemewut bor. ñemewut bor. daa am pay lu xam nga luy pay gi sëñ Touba sëñ Touba ngoog sa waa kër a ngoog yaa ngoog nee na moo la war a sant de ñun ñëpp ñoo la war a sant nee na ndax lim nu liggéeyloo liñ ciy jële kon noo war a sant liñ ciy jëlee rëy na lool te moonu ko may kon nag noo war a sant nee na liñ bëgg mooy nga yàgg fi rek te wér sëriñ bi sëñ Abdou Karim nee bëgg na la lool bëgg nañ la lool Mbakke nee na bëgg nañ la lool Mbakke ci lépp la ko dale ci sëriñ Touba ba ci sëriñ Soy bu Mbakke ba ci sa jëmi bopp ji ak sa sa jikkoy bopp sa doxalinu bopp sëriñ bi nee na bëgg na la dalee ci sëriñ Touba ba ci sëriñ Souhaïbou ak sa jëmmi bopp ak sa jikkoy bopp ndax da lay wóotu sëriñ Souhaïbou waaw wóotu sëriñ Souhaïbou day nag cër ci dégg-dégg ak melo waaye sëriñ bi mi ngi na dégg rek kes kenn musta dégg dara lum doxal lu dul sëriñ Touba rek. loolu nag ni ñu ngi koy bége ñun taalibe yi te ko ci sant bu baax ndax bu ñu sanoon sañoo it ku mel ni sëriñ Souhaïbou ku ko fi nekkal nii nga mel rek lay mel moo tax ñu sant ci bu baax moom daal nee na sëriñ Aliou Mbacke mii sama rakk la ba mu yëgee liggéey bi ba léegi ma wax ko ko lu ma teel teel teel ndax boobee ba léegi waxtu wi ma daan def samay yëf ci suba si sax dama ko gën a teelal ndax di bëgg a teel a xëy waaye lu ma teel teel a xëy rek fi laa fekk sëñ Aliou mu ne ci tool yi fi laa koy fekk nee na sëñ Aliou Mbacke mii nga ñaanal ko bu baax ba fi mu bëgg a yegg mu yegg fa nee na mbooloo mi teew ñaanal leen yaakaar nañ la lool xam naa ne bu ma leen liggéeyloo woon feneen danañ ñëw waaye ba ma nee ah sëriñ Cheikh saykat la ñuy liggéeyal dañ niñ ci sawaree man yëg naa ko man te loolu mooy li ma wax léegi rek saw melo rek ak ki nga doon yàlla na fi yàgg te sëriñ bi nee na bég na lool sant nañ la bu baax sant nañ la bu baax ndax liñ jëlee ci liggéey bi ndax liñ jëlee ci liggéey bi man xam naa ko man xam naa ko taalibe yi xam nañ ko saa bu ne saa bu ne bu ñu xëyee dañuy gën a sawar rek te loolu xam ngiñ xam ne yow la ñuy liggéeyal moo ko waral jërëjëf Mbacke yàlla na ngeen fi maase yàgg fi tawir lool ñëpp bëgg na mu ne mii moo doon ndaw diggam moom moo doon ndaw nee na sëriñ Abdoulahan Mbacke moo doon ndaw li dox diggante moom ak sëriñ bi lu jiitu lii sax lu jiitu lii sax màggali sëriñ son bi yëpp màggali sëriñ son bi yëpp lu ci xew lu ci xew lu mu ca soxla lu mu ca soxla moom mi mooy ndawam moom mii di sëñ Abdou mooy ndawam te lu ci sëñ bi mës a dégg te lu ci sëñ bi mës a dégg da koy def ni mu ko bëggee da koy def ni mu ko bëggee ba defe ko nu kawe njort ba defe ko sax nag nu kawe njort kon nag cant yooyu yëpp kon nag cant yooyu yëpp ba ci liggéey bi ba ci liggéey bi li ci aju lépp li ci aju lépp mi ngi koy seere bu baax mi ngi koy seere bu baax lii nag lii nag euh, day dalal xelum day dalal xelum ñi ne ci seen ginnaaw ñi ne ci seen ginnaaw day wane ne. ndax day wane ne. la fi newoon démb. la fi newoon démb. moo fi ne tey rek moo fi ne tey rek. boo demee kër Serigne Souhaïbou. boo demee kër Serigne Souhaïbou. gis fa Serigne Fallou sama mag. gis fa Serigne Fallou sama mag. kër Serigne Fallou sax. kër Serigne Fallou sax. lu yéeme dafa am. lu yéeme dafa am. moom bi mu gënee àdduna. moom bi mu gënee àdduna. Serigne Souhaïbou dafa woo soxna Aminta Bousso. Serigne Souhaïbou dafa woo soxna Aminta Bousso. waajuru Serigne Abdoul Khadir. waajuru Serigne Abdoul Khadir. di suñ maam maag Serigne Fallou. di suñ maam maag Serigne. fallu moom yi sëñ lu ndax mbàkke sëñ mbàkke kanni mi mbokkal ndey ak bàyyi moo jur suñu ndey ndax sëñ mbàkke kanni mi mbokkal ndey ak bàyyi moo jur suñu ndey moo tax sëñ ko ba mu ñëw moo tax sëñ bi woolu ko ba mu ñëw ne ko sëñ fallu mii ne ko sëriñ fallu mii damaa am yéene ci sëñ fallu damaa am yéene ci sëriñ fallu ba sédde ko ba sédde ko ko waaye ni mu ne waaye nii mu xiibane amatuma ci yaakaar amatuma ci yaakaar waaye na ko gis rek waaye na ko gis rek yóbbul rek yóbbul rek lu mu la wax rek ma dégg ko lu mu la wax rek ma dégg ko soxna Aminta indi ko. soxna Aminta indi ko. ne ko suñu suñu son kim la tuddee ngii. sëriñ son bu day kim la tuddee ngii. waaye xanaa daa am ci yow yéene rek. xanaa daa am ci yow yéene rek. waaye kii da jërëjëf tudd kenn ndax du fi ne. kii du nit kii du nit. ni mu xibone ni mu xibone. sëñ Fallu ko déedéet. sëñ Fallu la ko déedéet. dafay toog dafay toog. ba am barke ba am barke. gudd fan lool gudd fan lool. demut fenn demut fenn. moo am kër sëriñ Fallu. moo am kër sëriñ Fallu. boo demee jébbaloon sëñ Souhaïbou da koo jébbaloon sëñ Souhaïbou ci daara jii la nekkoon ci daara ji la nekkoon. te yàlla def na. te yàlla def na. sëñ Souhaïbou. Hmm? te yàlla def na sëriñ bu te yàlla def na sëriñ Souhaïbou moo taxawu sëriñ Fallou moo taxawu sëriñ Fallou bi mu bi mu làqoo kon nag loolu ton nag loolu li ñu boole dafa bari li ñu boole kat dafa bari lii moom lii moom def ci ak sotti ci rek def ci ak sotti ci rek la noorun ala noorin noorun ala noorin jërëjëf Mbacke jërëjëf jëf yi am na solo teg nga ko fa ko daan teg rek ñaanal ñëpp tàllal parce que bëgg tey wax amin day na sëkk amiin amiin amiin yaa xaari xaari xalxi lu ma asaa abadan بالبر والسر والرضوان يا الله يا بارع الخلق خذ لنا فدعونا سم وخذ الأجر للجماعة يا الله أتى المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو المكر يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا يا رب يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت به نسأل بسكريا يا خضار يا الله خانت لي وديعة دعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فخمس ألاتي فلا سكريايا وأبحي اللام لغوت